avance bari naa ne ñu ngi bëri maa ngi bëri waaw waaw maa ngi bëri naa àdduna moo leen di seetaan ménageur bi nee na. combat nga bëgg. waaw kan la sa ménageur. Sourou Fall. sama ménageur a ngi nii dama la wax mu ñëw. xam na jeex na taaw na. nee na kon jeex na taaw mënu maa jël kii jël la. dafa daan lay bëreel man six combats la am six victoire. six combats six victoire. waaw maa daan cinq tonnes daan bébé tonne. waaw loolu lépp dara dana leer man. waaw. dañoo waaw waaw. moom ba léegi léegi. léegi man fii laa koy waxee. waaw Sourou mooy sa ménageur. waaw sama ménageur a ngi nii. demal nga promoteur bu ko tëgg mu ñëw. pare naa na nga am ngaru nag na nga am ngaru nag ni nga ni a ni nga ma tëkkoon nii. bu arbitre sifflé na nga taxaw. yow eh man bëre maa yow ah man bëre maa yow yow kan yow kan moo la xam. mais dama naan man bëre maa yow. duma ki lay njëkk daan. yow duma ki lay mujjee daan. moo gën a lam amoo daan. xam li ma leer te leer. li ma leer te leer. boo dëggalee sa bopp ma ñuus la. ginnaaw bu ma sante yàlla. Eh, eh, julli si yonent bi. sant samay waajur sa jikko moo la tooñ amoo doole amoo xam-xam boo ma jëlee naa la duma naa la daan dem naa six combats man la waasin tóor man la amateur yi wër maa la mun téeméeri junni yoon Wassintor yaa ñeme yàlla man maa jóge man. waaw léegi dama woo sama manager mu tëgg. ñu wàcc léegi ñu leeral ko ma ne ñu wàcc léegi ñu leeral ko. ndeysaan leer na tas